tey jii nii Serigne ñëw na ci dëkk boo xam ni dañ ko jox Toppi Diop fii la Samba Diop Toppi dëkk nekk ci rajo Kébémer des na kontaan. personnel du engage état parce que engagement personnel mooy loo xam ne nii lu yàlla def tamit danaa ko def ndax def naa ko Kaolack te maa ngi doon wut daara ji ma ko def muy euh, centre d'incubation agricole bi nekk Kër Bakka naa xam nga ko ñu mel ni ñu installé fi benn beneen bi mooy IFTAC unité de formation et de transformation li muy complété mooy xale bi buy jàng am na xale bu neex xel dana mën a continuer jàng mokkal alxuraan mais am na xale boo xam ne boo gisee xel mi dafa xaw a dëgër da nga koy génn mu jàng liggéey jàngale alxuraan bu paree rek dana mën a tekki bu baax a baax a baax ndax léeg-léeg ngi naqare xel ci jàng mën nañoo gën a neex xel ci leneen looloo tax fukki pon ponk yi nga xam ne nii moom laa jël pour war koo def ci daara lii da cee bokk bu wér mooy daara pour mu taxaw dafa war a am euh, conseil supérieur des cultes mooy diine ji am fu ñuy waxtaane ndax mu mënuñu nekk tout le temps bu problème amee ñu ne na sëriñ si wax nañ leen jox cadre boo xam ne nii jotewut ak dara ak euh, pouvoir bu xalifa bi bii diggante biñ mën a séq ak gouvernement bi comme ñun niñ amee ay chambre de commerce yoo xam ne nii jotewul dara suñu liggéey waaye am nañ foo xam ne nii danañ fa man di waxtaane li nga xam ne nii état bi daf leen di jox benn fond boo xam ne nii ñoom ñoo koy moomal seen bopp liñ doon wut daal ñu fii fii daal mooy suñu programme ànd nawle ànd liggéey yokk ba ko euh, daara ji tool bi penc lii daal mooy mooy li wax ndax fii bis bu nekk penc bi yaa ngi fii di jënd waa dëkk bi nag am ngeen lu rëy sëriñ bi fii mu ñëw xéewal la ànd kook ah ànd ko seen Cheikh ah seen Cheikh Khady waaw nga seen Cheikh seen ah xéewal la te incha allah lépp dana ko fekk fii. tey dañoo ñaan yàlla fépp fu nekk mu doon barabu jàngukaay jàng ak liggéey jaam yàlla ak liggéey. moo tax barab bi demee ni tout tànk yi fi jàng alxuraan di ko mokkal waaye te ñi nga xam ne tamit euh, génn jàng nañ ba pare wala ñu mat a ñu dugal leen ci xeeti liggéey yi nga xam ne ci ci nekk. kii nag maa ngi leen di dénk na kenn la ci man sama mbokk la ni mu ko waxee ay doomu ndey lañ waaye tamit dañoo bokk bëgg-bëgg bokk jublukaay bokk taxawukaay ak mbokk bu amee tamit xarit day am wala day am waaye bokk taxawaay am ñi wut réew mi tamit bari na. yaakaar naa dix-neuf candidats waaye man mel ni yow laay gisagut mu ñëw fii ci Tobbi Diop kon loolu nag ñun yëg nañ ko ndax man dëkk bii dama ko fonk fonk gi tax na li ëpp solo ci li ñuy def muy jàng alxuraan ak jàngale fii lañ ko sos indi fi suñuy njaboot ngir liggéeyal yàlla loola nag maam yee ko daan def ndax Serigne tubaab bi mu fi nekkee dafa yóbbu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacke Kajoor sëñ sëñ Modou Moustapha tundoo di sëriñ Mouhamadou Fadil mu yóbbu ko Ndindi sëriñ euh, maam Thierno mu yóbbu ko daarul ti kon kenn ku ci nekk Touba mooy dëkk ba la ñuy daje waaye kenn ku nekk dana am barab bu mu nekk liggéeyal fa maam kon barab bii lañ nekk ngir fa seen fa liggéeyal Cheikh Mouhamad Lamine Baara ñaan yàlla jàppale la ci li nga nekk ak sa taxawaay ndax borom pas-pas nga borom taxawaay nga euh, li nga yéene tamit lépp yàlla suñu borom doon la cee dimbali doon la cee jàppandal ñun daal euh, ñi ngi ñi ngi ànd ak yow ci li nga nekk ngir alxuraanul karim ngir diine ngir tamit lu ñu yàlla boole ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتائمين والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده tey jaar na ba ñëwee Kébémer fekk si la xale bi jàng fi alxuraan seetlu na wante wala loolu ci yàlla di wax rek mooy du ak mbaax di jullee woor di jullee ko këpp këppoon mbaax yàlla moo tax yàlla dafa sedd eh, doomu aadama ak morom ma ci diine lu bare bari loolu tax ñu ne daanaka diine li ci ëpp doole ci dundu doomu aadama la li ngeen di def nag mooy ak mbaax ak jàngal nit alxuraan te ñu ko defal ngir yàlla. di sonn ndaj lu ne loolu nag man moo ma tax rek ma dugg ci lii mm-hmm. ah, ndax lu ma man-man kenn mënut remplacer état ci réew état du alal organisation la mm-hmm. te mënoo fekk loo xam ne nii am na nja amal na njariñ nit ñi mm-hmm. amal njariñ état bi amal njariñ société bi amal njariñ njariñu réew mi ñu jël ko rek teg ko fële naan suñu yoon newu ci boo yëkkatee dara jox sax mel ne dañ leen koo sar te ñoom kat ñu nekk ci réew mi di fay di dépensé te lu ñu dépensé ñoom ñu am ci seen wàll kon nag bu ñu doon def li daara di produire rek ñu di ko ci jox àqam waatoo kullu si xaqan xaqoo kon problème du am waaye dafa mel ni tey réew mi ku jànge daara kuy liggéey liggéeyu informel bi te mooy liggéeyu bay napp sàmm ngay transporteur wala ngay def lépp boolewuñu la ci dara dañuy jékki-jékki rek xëy na de lii ngay def par force man nga fekk mag moo xam ne nii ba muy commencé doog liggéey ah fonctionnaire ba waajuram sax mën naa am juddoo ko ñu xëy xëy jox ko ay galañ mu du ci xool dara mu mën a xëy suñ ne yow commerçant nga rek wala sëriñu daara nga rek mën nañoo xëy teg la fitna joo xam ne nii ah, kenn du amul foo ko jooyee te mu dee da ngay politique lu la neex def loolu nag moo tax ñu jóg te dañoo bëgg lii dañ fexe ñu di ko wax ci àdduna bi dafa tool bi mooy mbay mi. leen wax ne man liggéey laa xam xaw ma politique nañ yeewu nañ yeewu te dénk li dëkk bi ay liggéeykat ñu ànd liggéey dëkk bi. Thiès nag nekk dëkk bu riche parce que. Euh, lépp ngi fi moo tax nag ñun suñu bëgg-bëgg mooy dañuy boole dañuy def dakaar ak Thiès benn pôle ñu nama fi benn ministre d'État boo xam ne Thiès lay leen comme président toog fi def un développement local parce que Sénégal ni muy doxee lépp rek ba nga dépendre ci Dakar looloo tax réew mi mënul dox loolu bu ñu defee ndaw ñi danañ am liggéey ñun dañoo prévoir pour def cinq millions euh, d'emploi pour génn Sénégal ci ndool ji mu nekk léegi nag yéen ndaw ñi xam ngeen ne depuis indépendance ñu jox réew yi doxul xamuñ ko sax xamuñ réew mi ba dafa doxal li ñuy def rek bu élection jotee ñu daw ñëw fii taataan seen baat demaat nekkaat ci li ñu nekk man nag loolu laa gis mu metti ma en tant que doomu daara liggéeykat ba ma jóg takk sama ndigg ñëw bëgg ànd ak yu bind loolu loolu nag mën naa yomb ndax ñun ñu ëpp majoritaire ci dëkk bi buñ ko joxee yitte dem topp toog ko rek dina baax ndax kat li ngeen di bëgg def dimanche da ngeen dénkaane seen alal seen doole seen baat te koo xam ne yow wóolu koo dénk sa alal bu ko dénkum réew bu ko dénkum réew te ñun ay liggéeykat lañ liggéeykat xamul soxal liggéeykat li mu xam mooy liggéey jariñ moroomam ñu ànd liggéey ba jariñante ñëpp am liggéey